jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ñu togg koo xamante ne suñu kilifa la suñu pàppala la muy père Bourkhane Wade nga xam ne moom moo ménager ki nga xamante ne mooy Boy Niang càppaacoli bi ñu gis diggante bi nga xamante ni xew na biir pikin di ko féliciter ci ndam li nga xamante ni Pikine am nañ ko bërki démb muy am muy Boy euh, Eumeu Sène dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu weel waxtaan père ngi lay nuyu baax di la siyaar onze bi kalimatillahi taamaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci bàyyi laay ak mu ngi nuyu eh, internet yëpp eh, précisément nag eh, wasaare di la nuyu yow jili di nuyu sa caméraman di nuyu képp koo xam ni yaa ngi bokk ci ahlu làmb di ñaan yàlla senegal yàlla na fi jàmm wàcc am na solo père barki démb pikin dañoo am combat bu rëy doxoon ci diggante ama Sène ak Bombardier mu nekk revance ama seen daan Bombardier jël titre roi des arènes ñoom ñaar ñëpp ku nekk ñàkk titre bi ñu fas yéene di bëriwaat mu nekkoon pression boo xamante ni pression la woon ci combat bi waaye pression la woon Pikine combat bi bi mu taxawee ñu dem ba ba jour si ban moment nga mujjee gis ama seen ak lan nga ko wax Euh, waaw euh, combat bi. bi muy mujjee moom. vendredi bi mujj ci combat bi ci gisante. vendredi bi mujj ci combat bi. waaw. Mhm. parce que xam nga ëmb moom. Mhm. sama doom la maa ko juddulu mhm. ma dëkk ak papaam ak yaayam yëpp. mu nekk xale boo xam ni xale bu. bu ñu am yaakaar la ci moom. Mm-hmm. ndaxte yaayam daf fee teel a jóge moom mu toog fi nekk ak papaam. Mm-hmm. nekk nit ku brave. Mm-hmm. nit koo xam ni dafa ñeme jaayante. uuf ay doomam. mu nekk ak Amma ak euh, Xaadim. ak Souleymane ñu nekk ci euh, seen kër. góor gi yor leen di amoon nag nekk koo xam ni bu fekkee ni rek ay affaire souffrance la wala yu mel noonu. moom da ciy def maanaam da cee màgg. moo tax hmm. tey jii lu mu am bettu ma. Hmm. Euh, aussi mun naa wax ne à saison la ñëw commencé di ànd ak ay magam ñoom Mansour Diop ñoom Paala ñoom Abdou Bakhoum ñëpp. Hmm. mais mu nekk Benjamin. topp leen kenn du fàtte diggante ma Ousaaf. ousa mbappat mu ñu mës ñëw ñoom ñaar dañ koy tas mm-hmm. ndax bëre bu ba ñu fay bëre mm-hmm. alors mu nekk koo xam ne tamit à dix huit ans équipe nationale jël ko mm-hmm. euh, mu dem Niger def ay exploit nekk champion d'Afrique kon ma sama diggante moom dafa yàgg première combat ñu ngi ko ñu ngi dem ñu ngi ko entraîné Boulouma Boulouma nag xam naa am na xale yu bari bëri ñu ko parce que benn usine la boo xam ne boo jëlee télé bi jëm géej dem ba tombe eh, jàkkaarloo géej gi fa la usine ba nekkoon. Mhm. bari na ay mbëru Pikine yoo xam ne fa lañ daan entraîné diggante foofu ak zone bi jëm Seras. Mhm. ñoom Balla bi euh, ñëpp ñoom Tyson ñoom ñëpp fa la ñu mhm. foofu lañ doon wax Blouma. alors premier combat am foofu je me rappelle très bien fa la ñu demee di ko préparé. Euh, combat am ak euh, Souley Dop. nekkoon combat boo xam ne comme tey jii nii rek ñu koy waxee. Euh, noonu la demee woon mu amoon enjeu bu mag nag su lay dop nekkoon koo xam ni waaw géant na fekk ñoom bàyyi mun yoon nekk xeexkat mm. boo xam ne ku la mm. waaye Mansour soo mi nga xam ni moom tamit c'est un rassembleur mu nga Italie actuellement mm. moom moo leen wax ne dem leen ngeen seeti Père Bourkhane ñu convoqué moom a ñëw ñu toog waxtaan ci combat ba yàlla dimbale ñu lañ fa waxtaanee ñu am ci réussite kon maak Eumeu Sène du tey maa ko juddulu sama kanam la juddoo ngénteem dama toog. wax ah, wax nga ko ci sa biir wax nee nga àjjuma bi ngeen mujjee gisante yee ñaar. waaw bi ngeen gisantee ci àjjuma bi yan kàddu ngeen dénkante. waxtaan waxtaan xam nga Eumeu Sène. Hmm. du ko xam ne dañ koy jàngale te bëri. Hmm. ay tegtal rek lañ koy wax ak di ko fàttali. Hmm. parce que koo xam ne après apprentissage bi mu def ma wax la ni la koo xam ne yow bi ñoom Mansour Diop di bëri. Benjamin nga. nga ñëw ak ñoom Paala. ak ñii ñoom ba ba baaba hmm. yaa ngi dégg hmm. yenn mbër yu bari ci biir Pikine nga xam ne sax ñoom euh, bokkul ak ñoom jamono hmm. mais quand doon dafa leen doon dafa nekkoon seen keppaar kon kooku apprentissage bi mu def ba tey jii mu toll fi mu toll amul kenn kenn koy tudd ci làmb ku am valeur koo xam ne amul seen bëriwul ak yow sans compter nag passage bi mu def ci euh, ñii ma la wax ñoom Souley Doob ak ñoom Zallo ñooñu kenn ku si nekk mu fu mu jaar ak yow. Mm-hmm. ba si ñoom kay rek. Mm-hmm. kon xam nga ni kooku tey jii du du nañ koy jàngal bëri. Mm-hmm. jàngalatuñ ko bëri actuellement dañ koy fàttali rek yaa nga dégg. ak di ko guider. parce que dafa laaj dafa soxla ñu ñu encadré la. Euh, boo fàttalikoo ci kombaam ak euh, bombardier bu njëkk ba. bu fekkee ni am ngeen archive yi. man dama doon wax ni. Eumeu Sène bu ngeen gisee mag ñëpp ci ginnaawam rek magu Pikine bu ngeen ko gisee ci ginnaawam. Hmm. mooy nekk roi des arènes. ma ne suy ba suy daan Bombardier ci kanamam la koy daanee. Hmm. parce que jàngoon nañ ba xam ni euh, Bombardier c'est un très grand champion. Hmm. mais morphologie bi euh, busam moo ëpp doole ay tànkam. par contre bi mu gënee nekk xale di bëri ñoom Moustapha Guèye ak ñoom gars yi ñoom Zalo ak boobu temps tànk yi dafa mënoon a supporter mm-hmm. buste bi mm-hmm. xam nga nag nit suy mag alors mm-hmm. morphologie bi day changé da ngay dem ba dangay ngay sentir ni buste bi moo ëpp actuellement tànk yi alors kon nag il faut mu am yoo xam ne day manqué ci moom yooyu gisoon nañ ko te ba mu koy daan aussi noonu ñu ko waxee woon noonu la demee stratégie bi ma seen daanee Bombardier hmm. bett na la dernier combat bi. non bett moom parce que lu ñu waxtaane la lu ñu waxtaane la ne nii ak nii lañu war a defee heureusement mu nekk nag élève bu mën a jàng la sama. léeg nga ñëw ko xelal xale woon ko lépp loo xam ne war na ko def pour daan mu ñëw ba ca làmb di ko def. mais père est-ce que xam nga ni Bombardier jàkkaarloog moom ci digg géew. Hmm. nga gis ko mu lay xool nga koy xool nga ñeme koo affronter góor yàlla dëgg moo ko mën. waaw xam nga Eumeu Sène xamal nañ ni ko boo soree bu ñu la jox père doo du xamal nañ ni ko boo ko soree li nga bëgg a def doo ko def hmm. xam nga Bombardier du mbër moo xam da ngay taxaw ndar mu taxaw ndakaaru ngeen di bëree hmm. saa yoo départ mu jàpp la hmm. mais boo ko jegee comme nekk na koo xam ne moom boo xeexee mu fayu da ngay am possibilité mën a moom te moom ci boppam moo dem wuti jàpp moom Bombardier moom Bombardier moo dem wuti jàpp mais am na noo xam ne noonu la ci Eumeu Sène bëree parce que xamal nañ ko rek bu mu la njëkk jàpp. Hmm. fexe na aussi ba mu bañ koo njëkk jàpp. Hmm. wala bokk jàppam moom moo gënoon a dëgër jàpp jàpp Bombardier. Hmm. alors soo xoolee toujours comme dafa war a bëri ci ay flammes pour mu wicc ko sax ci flamme bi la dem. léegi comme bis boobu ma la wax ne nag bis bi nekkul en proportion ak tànk yi. yaa nga dégg bis boobu mooy wàcc. sooy bëri ci flamme. Hmm? léegi jëmmam ji. Hmm. yaa ngi dégg. boo defee nii rek jëmm ji day wàcc. mu wàcc. Hmm. ama seen daan bombardier. waaw mu mel ni Père Bourkhane am na mbégte. waaye gis nañ ama seen jugee ci géew bi. ñëw ba ci yow cot la. waaw mais kott bi yàgg na loolu mu nekk cot mbégte kott boobu lan la. kontaan xam nga ay nit suñu àndee. engagé wu ci benn affaire yàlla may leen réussite. ñun. xëy na liggéey boo xam ne liggéey nañ ko ba ci jour ba yàlla fayee ñu loolu hmm. mais du càgganu par exemple Bombardier dafa yaanaa ni wala dafa mënul bëre wala dafa jëlul décision hmm. décision dëgg la bëre mais ñun xamoon nañ ni bëreeg Bombardier du nekk doo ko tirer en longueur hmm. da ngay jouer ci esprit maanaam comme jàng nañu ni su jàppee day am doole day am force de bras mais su taxawee équilibre am day xaw a jafe kon bëri ci ay wetam moo ëpp chance ou bien nga dugg génnaat comme par exemple Balla Gaye 2 gis nga ne mu bëri woon ak moom hmm. dugg génnaat moom mu ni kut ko kut dama koy fusiller hmm? Hmm. alors ba mu jot mu jël tànkam cette fois si nekkul comme ni ma bëree premier combat premier combat bi dafa xeex ak moom Bombardier war a fayu moom muy xeex ba pare di reculer Bombardier topp ko moom mu daw di ko song Bombardier di ko jàpp mu roccee ko mm-hmm. Bombardier kon ba léegi la ma doon wax ci bistu ba mm-hmm. yaa nga dégg bistu bi nekkul en proportion ak tànk yi mm-hmm. mais bu fekkoon ne bëre dañuy jàpp ba pare doog a bëre kon Bombardier mooy nekk roi des arènes kenn du ko daan ndaxte dafa bëre mbappat ba doyal doog ñëw ci arène bi te bi muy dugg ci arène bi champion yëpp la daal mel num ni moo koy perturbe te day joué ci esprit mm-hmm. xeex ak moom ci kaw caxabal ko ci suuf. Mm-hmm. mais tey jii soo xoolee Modou ak bëri bu rëy bi mu bëri ak moom ak ñu tiré combat ba en longueur mu blessé bombardier yaa ngi dégg. Mm-hmm. yëpp terewul moom moom mu ngi ko tegal piège boo xam ne rek saa yu fa yegsee dama koy daan. te ba mu fa yeggee daan na ko. kon c'est c'est un grand champion mais làmb nee naa ni mën a bëre du tax nga daan. su doon loolu la kon Balla Gaye du daanu. kenn dàq ko bëri. Mm-hmm. su doon loolu la kon Yékini du daanu. Mm-hmm. kon Moustapha du daanu. Mm-hmm. mais làmb day toll foo xam ne ki gën a baax stratégie mooy gagné. Père Bombardier ban erreur la def ba Eumeu Sène du erreur la def. Mm. dama ne stratégie. Mm. ñun dañoo lal loo xam ni lii suñ ko defee daan. kon Bombardier deful benn erreur ci combat non yeggul ci fi mu bëgg a bëree moom. Bombardier jotul yegg fi mu bëgg a bëree. soo seetloo làmb je lan nga mën a wax ni Bombardier def na ko fa lu tax muy daan parce que fi muy xaar waa ji yegguñu fa ñu daan moom mi ngi xalaat suñu suñu jàppante bu ñu jàppante aussi il faut moom mu téye fu dëgër fu mu bëgg a téye mm. te mayuñu ko benn yoon mu téye wicc mm. fekkul mu téye parce bu téye woon kon du wàcc mm. bu bu fekkoon ni li mu bëggoon a téye téye na ko mm-hmm. kon même buñ ko wiccee du wàcc day fekk mu téye ci kaw. mu jàpp mu am fu mu jàppandu. waaw mais day tenté pour jàpp ci ngemb. Mm-hmm. toujours Eumeu mm-hmm. Sène a ngi bañ fu mu téye ci ay ngembam. Mm-hmm. force mu ngi koy pousse pour que mu mu résister. bi mu koy wicc xam nga bu fekkee ne yaa ngi résister. buñ lay da ngay ñëw carrément te li ma la wax aussi ci ni la bés bi nekk en proportion ak tànk yi. loolu tey la ko dab bu mu commencé magal. mais ku ne xam na ni Bombardier bi muy doog a Hmm. di bëreeg ñoom Moustapha Gueye ak ñu noonu gabari bi mu yor hmm. gabari bu taxaw la ak ñoom Pape Cissé pour amul ku mu ci may dara ñoom Zallo amul ci ku ci may dara hmm. parce que boobu temps gabari bi mu yor dafa baax mais tey ji damay yox ni nañ xoolaat Bombardier entraînement bu baax lay indi waaye nag dafa am nit loo xam ne moom boo ci tolloo say sa ngay ngay magal bind bi day changé dëgg la mun na nag def ay résultats yeneen ci combat yi nga xam ne war na ñëw. Hmm. quoi que ça soit mu nekk ci MMA wala mu nekk ci leneen. Hmm. moom entraîné na entraînement boo xam ne actuellement mën na mën na résister. Hmm. waaye tey li tax tey ñu ñu gañe ko. ñun dañoo indi stratégie boo xam ne nee naa dañ cee waxtaan ba d' accord. Eumeu seen nag nekk élève bu mën a lire leçon. bés boobu mu war a tari tari correctement. loolu ngay wax ni tey jii même élève sax bu nekkee ak maître am. su su fekkee ne toujours day mokkal. Hmm. day fier ci maître hmm, hmm. mais élève boo xam ne du mokkal ay leçon toujours day perte day dem ba day mere maître loolu moo waral nag loolu nga gisoon keroog. Ah, ànd nañu waxtaan nañu teg nañu suñu stratégie yàlla dimbali nañ ñu gaji alors loolu moo waral mu téye mu lu yàgg. jooy yu yàgg. ñaanal ma ma ñaanal ko te xam naa ni dina def leneen. ah oui Eumeu Sène dina def leneen. parce que euh, fii mu toll nii dafa toll ci ay investissement hmm. wala nit ñëpp yaakaaree sa waa kër yaakaar la ñi sa écrit yaakaar la Pikine bi nga nekk yaakaar la hmm. am na ay projets yu mag yoo xam ne Eumeu Sène war na ko dëgmal te bu ko commencé il faut mu ànd ak ay quelques combats yoo xam ne moo ko yóbbu retraite hmm. souvent day wax ne dans deux ans mu bàyyi waaye nag moom moomul boppam genn wàllam moo ko moom mais genn wàll gi ci des nit ñi ñoo ko moom te écrit bi nga xam ne mooy tàcc nga révolutionné na ko ba tey jii nga gis ñoom Tyson 2 xale yu bëri commencé émerger mm. kon laaj na mu defar loo xam lu taxaw la mm. pour que Tay Shinga di même bu fi nekkatulee di investir ci leen tamit Tay di dund am na solo mais père ci ci yaakaar bi ñu am ci Eumeu Sène mm-hmm. mais keroog dañuy gis ne Eumeu Sène day bëre ji mm-hmm. mais Pikine dafa mel ni gungewuñu Eumeu Sène mm-hmm. ndax ni daan gisee mbooloo Eumeu Sène pikin ak mbooloo mi ñu gis keroog Pikine dafa mel ni Eumeu Sène wéet na biir Pikine Pikine nag ñi fa nekk dañuy rafetal. Hmm. di defar mais am daa mel ni am na problème bu am seen biir de. jili hmm. man su ma la waxee dëgg rek. Hmm. Pikine yi saa yoo gisee ñu ànd nekk benn. lépp lu ñu xëccu am. AS Pikine nekk na fi am ay problème lu yàgg. mais keroog bi Pikine àndee dañoo gagné coupe du Sénégal. gagné championnat. année am na année boo xam ne ci la Ama Baldé bëre ak Papa Sow. Hmm. Boy Niang bëre ak Sa Thiès. seen hmm. Sène bëre ak Bombardier. Hmm. bi Pikine yëpp taxawee dañ ko gagné. ndax man man mii ma toog leen neuf point la la Pikine soxla ci yéen te war ngeen leen koo jox. Ama Baldé ma neuf points wulaat ma expliqué ko mu ne ma man de sama trois points naa ko décroché. place la njang la loolu loolu xewee. biñ demee moom mu gagné trois points Boy ñëw gagné trois xam nga foo gis rek il y a des hmm. am na ñoo xam ne yàq rek moo leen neex. Hmm. xam nañu su Pikine àndee euh, Eumeu Sène day gagné. Hmm. ñu commencé ni wala booy euh, Ama Baldé kële la faral euh, nu mu toti Sa Thiès la faral. contre Boy Niang. Boy yi commencé di lakk ay t Boy t Ama Ama ma ne Boy Niang léegi dama bëgg nga jël drapeau bi ànd ak comment Ama Baldé ngeen hmm. dem yóbbul ko Eumeu Sène hmm. loolu dana am lu bari lu mu defar hmm. bi mu ko defee aussi dafa jël drapeau bi dem kër Ama Baldé keroog sareet ak oto moto yëpp direction kër kër Eumeu Sène Abdou Karim Sall nga fa woon ma Malick moo yoroon euh, affaire communication bi alors mu nekk affaire bu rëy Cheikh bu sëñ Babacar bi mu wooyee rek laa xam ni Eumeu Sène mii dana daan Bombardier parce que daf ko dope alors loolu nag su fekkoon ne réussir na. Hmm. kon Eumeu Sène sax mun na bañ a jël couronne bi parce que Pikine day divisé wu. Hmm. bii aussi c'est la même chose nit ñi ñëw nañu. Hmm. xëy na peut-être côté euh, côté bombardier moo xawee manqué tuuti. mais côté bi nga xam ne Eumeu Sène. ma nga fa woon foofu moom tout le monde euh, am na nit. mais Eumeu Sène public bi woyu si nañu ko. mais waa Mbaaw ñëw nañ Pikine tuuti ñëw nañ amanteur làmb yi tam aussi dañu bëgg Eumeu Sène ñoom it wuyu si nañ boo xoolee Eumeu Sène bi muy tuus mm. stade bi daanaka ñëpp ñu ngi jóg di tàll ay loxo mm. mais public bu Pikine bu ñu ñëwee dañuy taxaw ci benn ful taxaw ci benn tribune boo xamante ni ku xool day xam ne Pikine tey ñëw nañ en masse ndax Pikine yàgg nañoo ñëw ci làmb te bu ñu ñëwee dañuy wane seen bopp de gis nga am na ñoo xam ne dañuy wax ne présence su Ama Baldé mm. mais Ama Baldé am combat bu toll ni bi nga xam ne grand frère Eumeu Sène moom comprendre na ko. Hmm. Boy Niang comprendre na ko. Hmm. muy war a ñëw ci ci bi. Hmm. moo tax Eumeu Sène moom bi mu daanee dafa dem kër ama maanaam koñu ama. jaare fa parce que mënoon na jaaree nii dañ dem ñibbi. mais foofu la jaar ñu toog ay sëru ama génn ak ñëpp génn yaa ngi dégg. ñu jibile fa kenn ku nekk dem c'est-à-dire que nit ñi il faut jili ñu comprendre une chose. tey jili sama xarit la ñëwul sama ngénte laajal lu tax ñëwul mm-hmm. mais boo xamul loolu di ko transformé wala nga koy gisee neneen loolu mën na yàq diggante jili ak père xam mais per am na ñoo xamante ne dañuy nekk ci ginnaaw nopp mbëri rek diw dalaa bañ diw daf la contre diw keroog sa làmb ji ñëwul open press bul ñëw gis nga ku ci mel ni Pape Sarr dem na sax ba mer waaw kuy bëreeti Pikine sama yoon nekkatu ci ndax Pikine ni ñu waroon booloo boolewuñu xam hmm. xam nga xam nga tey jii langage yu Pape Sarr ak hmm. langage yu Père Bourkhane mënut a nekk benn ndax moom ba tey xale la hmm. te ñun ay mag lañ ñun ay fédérateur lañu ñun ay rassembleur lañu ñun li ñu xam ne moo ñu ñor mooy képp koo xam ne yaa ngi Pikine sooy jóg ñu jóg ànd ak yow soo ñu ko permettre man tey jii loo ma dénk ma téel la loo téyel sa bopp ma bàyyi la moom Pikine nag am na lu ma leen di wax boobu ba léegi maa ngi leen koy wax te ba tey hmm. nanguñu koo def hmm. dañu war a organiser ñoom ñetti mbër yi hmm. muy Eumeu Sène di Boy Niang di di Ama Baldé lenn loo xam ne fii lañ koy organiser ci am euh, stade Alassane Djigo tudde ko sargal magu Pikine yi jël soit Wally Seck wala Pape Diouf defar seen di diplôme d'honneur ñoom mbër yooyu ñoom ñetti mbër yooyu ak seen staff def ko manifestation bu mag commencé ci ñoom Pape Diop. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ba ci ñi gën a tuuti. magu Pikine yëpp magu Pikine yi. Mhm. defar seen i diplôme bu la neexee nga def ci enveloppe bu la neexee doo ci def enveloppe mais daal sac la bu rëy. et puis am na ñoo xam ne tey pare nañu pour ànd ak ñoom ci loolu ndax tey ku ci woo Demba Ka du la refuser. ku ci woo Bougane Gueye du la refuser. ku woo Wally Seck. du la refuser. ku woo Pape Diouf du la refuser Youssou Ndour ainsi de te loolu dana tax pikinois yi nga xam ne ñoom diviser rek moom moo leen neex. Hmm. pikinois yooyu dem toog parce que dañuy faible dootuñu amati doole. ñoom li leen gënal. Hmm. mooy kenn ku nekk nekk ci wetu benn mbër naan ko gis nga keroog bi la na la waaj a xoole gis nga keroog bu nga ñëwee na mu def nangam ak nangam. Hmm. pour seeni propre intérêt. léegi nag ñun danañu fexe en tant que magu Pikine. toujours fa ñu nekkoon ñu di fa nekk di leen won nii ngeen war a taxawee nii ngeen war a àndee te saa yu ngeen àndee rek am ay résultats yu positif. jërëjëf Père Bourkhane leeral yi am na solo loolu ñu ngi lay jaajëfal bu baax kontaan nañ ci. waaw jërëjëf ci li kontaan nañ ci yéen. Mm-hmm. di wax rek euh, làmb moom vraiment dafa nekk euh, milieu bu fragile. Mm-hmm. xam nga bërki de moo njaay nga déggoon ci stade Tëngéej ba. Mm-hmm. deux morts ak quinze policiers blessés. kenn commenté wu. fii Papa Sow moom kenn moo gaañu ci stade bi. dix huit mille personnes nekk. dix huit mille personnes ñoo nekkoon ci stade bi. jour boobu. benn nit moo ci gaañu. Mm-hmm. tout un mois nit ñi di ko waxtaanee. dëgg waaw mbër làmb dafa violent làmb nangam nangam lii moo dàq sponsor yi lii moo nangam nangam. Mm-hmm. alors que stade bële deux morts am na ci ak quinze policiers blessés. te mm-hmm. kenn waxtaanu ko. moo tax làmb dafa fragile. li ñuy wax rek euh, nañu fexe ñu dajaloo. ñu nekk benn. di yëkkateendoo di dóorandoo. et puis di éviter ñenn ñi nga xam ni. dañuy génn ci biti pour marginaliser làmb mm-hmm. làmb nag secteur la bu productif mm-hmm. ndaxte boo xoolee tey jii ñaata promoteur promoteur ñoo fi nekk am na fi ñoo xamante ni tey làmb dafa defar seen situation sociale ba mu baax mm-hmm. mu nekk ci mbër di promoteur di keneen ak keneen te am na ci promoteur yoo xam ne bu ñu daggee bii ni cëpp amerique dañuy jaar ci seen tur làmb ko waral bu fekkoon ne seen métier ba ñu yoroon rek la dinañu dugg ci dëkk ba génn fa kenn du leen làmb secteur productif productif la boo loo ni les sénégalais de l'extérieur hmm. la ca làmb liggéey c'est des milliers de c'est des milliers de personnes hmm. opérateurs économiques yi la même chose ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dund ci làmb kon nag nañ ko préserver président nu wut benn conseil hmm. boo xam ni da koy jël teg ko ci wetam pour mu koy conseiller ci làmb mais père am na question boo xam ne dama ko fàttewu mooy Eumeu Sène day jaar daa jaar ci tribunal bi wàcc ci CNG bi dagg ko un parce que fi ñu ko bàyyi woon fi ñu ko waxoon mu jaar fa jaaru fa. loolu nan nga ko gisee ci làmb mbër ma yaakaar moom mooy acteur principal bi su du gisee ci stade fu ko neex la war a jaar. man loolu man ànduma ci ak ñoom. Hmm. malgré ñoom dañu war am réglementation bu correct boo xam ne moom moo ñuy guider pour ñun nga xam ne lan la ñu war def ak lu ñuy tere. Hmm. parce que xam nga jaar ci kaw tribune bu fekkee amuloo surplus. Hmm. yàqul làmb. mais bu ànd ak surplus. Hmm. surplus bi moom lañuy wax waaye du dugg bi. Hmm. ndax loolu yàgg na ci làmb ji. Hmm. yàgg nañu barki de moo Ndiaye Balla Gaye jaarewul ci bunt bi ñu ko wax ne ko fa nga war a jaare mais terewul dugg na ci biir te amul sanction. ci côté boobu. ak ñeneen ak ñeneen. xam nga bàyyi mu doon waaw mu doon ci loos bi la jaare bari na mu hmm. ay ñoom Moustapha Gueye yàgg dañuy jaar ci ay hmm. eh, tribune te ñu tegal leen escalier ma hmm. seet mi tamit yàgg na ko def yaa ngi dégg kon man d'accorduma ak ñoom ci loolu man dama bëgg ñu xam ne seen tey bu ñu ko fi tegee pour mu liggéeyal ñu la parce que comité de gestion la pour mu liggéeyal ñu kon il faut mu am concertation entre les acteurs ñu ñëw toog ñu waxtaan su ñu gisee ni ko lii yàqul dara ñu déggoo ci parce que président Bira ku ubbeeku la wax dëgg yàlla mm. à chaque fois bërki dem bu ci affaire butéel yi rek dañ ñoo toog man li ma leen waxoon mooy bu benn butéel dugg mm-hmm. bu benn mais dañ ne ma non non comme ñun ñi ñoom de bëgg nañu dix butéel dañ leen bàyyi ñu dugal dix butéel mm. man dama ne woon làmb moom dugal butéel ci biir géew dañ ko war a bàyyi ku nekk na nga sangu sa cumikaay boo paree nga dem mais man d'accorduma ci dagg boobu ñu dagg un million mm-hmm. waaw loolu nag sama xalaatu bopp la dëgg la waaw jërëjëf maa lay jaajëfal bu baax Père Bourkhane di leen jox dig daje mbokk yi ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërëjëf.